gis ni Diamniadio bi ñu ko defé commune ak léegi suufu Diamniadio yépp ci li ci ëpp nga xamné tay ñi am ay njaboot sen njaboot di mag ñu wara am am way ñuy mag wara am ay équipement yi nga xamné mom lañu wara utiliser ci suñu dundin lu melni ay terrain lu melni ay stade lu melni ay cimetière lu melni ay marché ak ay école fañ ko état du Sénégal daf ko immatriculer ay nit yoo xam ne dëkkuñu jam ñaajo amuñu maam jam ñaajo amuñu mbokk jam ñaajo kenn xamu leen lu dul ay nit la yoo xam ne ni amaana jege nañ nguur am nañ daraja ñu jël ay li ñuy wax baay jox leen ko bàyyi waa jam ñaajo ñu koy ñaan moom le président de la république mooy boo yi nga xam ne dafa nekk biir jam ñaajo te ñu lim ko sànq boo yooyu yëpp na ko annulé ndax bë bëri na ci ay boo yoo xam ne jaarul fi mu war a jaar ñu bëri amuñu délibération commune Diamniadio raison pour laquelle ñuy ñaan président ñu def ay audit ci boo yooyu mais yenn yi ci bëri mu annulé ko ba pare jël surface yooyu jox ko Diamniadio ndax kat ñun waa jo jox nañ ko ci zone pôle bi kon nag feneen fi des nga xam ne foofu rek la ñu am nañu ko bàyyee beneen point bi ñu gis président de la république ci année 2021 dafa jël benn décret créer département de de Kër Massar ci biir création département de Kër Massar commune de Diamniadio amoon na coowu limite par rapport ak suñu ay naataangoo commune yu ñu séqanteel ah mu jël décret daal di wax ni léegi am na ay quartiers yoo xam ne ci Diamniadio la ñu bokkoon daf leen a boole yeneen yeneen i yeneen i commune nga jël lu mel ni Nduxura Pël mu ne def koo boole yeen nga mel ni lu jël lu mel ni Yaam mu ne daf koo boole Sébikotane nga mel ni lu jël euh, fee nga xam ne mooy Ndoye mu ne daf koo boole Sébikotane te jëlul benn dëkk jëlu fa benn quartier doole ko biir Diamniadio kon dafa mel ni Diamniadio daal non seulement dañoo jël ay ay ay boo indi ko fi ba pare jël de plus de 2000 hectares ci pôle urbain bi ba pare itam wàññi ay quartier Diamniadio loolu nag ñu ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba loolu moo tax ñu jàpp ni président de la république ne ko informé ci décret boobu ñu ko information bi baax ndax président bañul Diamniadio xam nañu loolu ndax lu mu am Diamniadio la ko indi raison pour laquelle ñu koy préciser di ko jox information yi baax di ko wax ni yaam ci jam ñaajo la mës bokk ci la bokk ndax moo histoire jam ñaajo loolu démb la ci mag ñi la woon balaa tey te kilifa yi ko mën a dëggal ñi ngi toog ndooyeen ci jam ñaajo la bokk fële nga xam ne mooy nduxale ci jam ñaajo la bokk beneen bi mooy le cas du pôle urbain de jam ñaajo au départ dañ ne woon 1644 hectares la ñuy jël bi ñu nee 1644 hectares la ñuy jël tey pôle bi commencé na di développé bépp international wala firme internationale boo gis

mi ngi dugg biir nous nañ ñu ñu wax nous nous la la une bonne fois pour toutes ba que également lépp loo ni la nous mu nekk ci pôle urbain intermédiaire suñu digënté ak mom ndax intermédiaire mom ko tek ndax fi sa information ñang koy jox jox ko mais le plus souvent ah information yi di dem ci mom ak yi askan wi di jox du doon raison pour laquelle dañoo bëgg mu recevoir ñu lu mu gën a gaawee en audience ñu ànd ak kilifa jam ñaajo yëpp toog ak moom wax ko lu ñu metti wax ko lu ñu bëgg ngir mu indi ci ay saafara